le 24 août laa fi jóge dañ maa laaj ne ma ndax def nga test man leen déedéet ñu ne ma yéegal ma yéeg ci avion bi dem normal waxuñu ma dara ma dem Espagne wàcc dem sama kër yàlla dogal soxla yi ma fa doon lijjanti ma lijjanti ko daal di dëppaat vingt 24 août la raat la laa dëpp bi ma dëppee am na ku ma àndaloon koo xam ni moom laa doon gunge pour mu ñibbisi yàlla dogal bi ma ñëwee ba wàcc Espagne euh, wàcc fii kii ki kii bu aéroport bu bees bii bi ma nee cëpp ñu ni ko am test. man ne ah, man de awma ñu ni ñu amul lañ féete nii ñu am nañ féete ne ña am nga xam ne ay benn benn tubaab lañu ak ña nga xam ne xëy na gëm nañ loolu ñu daal def seen ñu daat leen di jàll leen ñun ña ca des ñu ni 60 euro la man leen man awma lu ma faye màkki mandol man leen man awma ma faye ñu ni xaa ah, góor gi bul wax loolu man leen awma fu ñu fi ngi yóbbu leen ma fi ngeen di yóbbu ñu amut lu mu laaj ngeen def ma ko mais man awma dërëm ñu ni ma ndax am nga fooku la mën a yónnee orange moo ne man leen déedéet awma kenn du jóge Europe di ñaan xaalis ñu ni ma demal toog ne ma toog ba ñu vérifier ñëpp ba ñëpp fay su sant su sant 60 su sant euros te ñoom police nag ñoo ko ñoo ko lëkkaloo 60 te boo fayee 60 euros benn raako la ñuy jël teg sa gémmiñ ni la neel nga ni ñu daal di jël teg ni la demal ba ma ba ma des ca maag maire bi ma àndaloon ak euh, beneen waay bu ànd ak beneen jigéen ñu daal di ma ni waa góor gi commissaire ba ci boppam moo ñëw ni ma góor gi waaw yow comme ñii sët la ñu doom la ñu waroo ñëw fii di déconné waxa waxa waxa wax ba wër ma daal di ma ni bul wax nag kaay ma ñëw mu daal di mu daal ni gars yi defaral leen ko ñu daal jël sama passeport jël enregistré daal jël sama numéro téléphone ni ma ŋaangal ma ŋaang ñu jël ab raakool teg daal di ma ni neel xë ma ni xë ñu ni ma demal man leen det si comme def ngeen ma testé ba noppi jox leen ma këyit ku ma gis ba ma laajee man la def naa test aéroport ñu ni ma déedéet fii amul joxe amul joxe test ah, amul joxe papier kon xam nga ñi ngi arnaqué nit ñi ñi ngi sàcc nit ñi ñi ngi sàcc xaalis nit ñi am nañu fenn seen kaddu joti na fenn ci benn tele man même bu ma dee fay dinaa fay pour dénoncer leen pour ñu bañ xaalisu nit ñi ñuy sàcc ñu bàyyi ko waaw 60 euro yombul te ku wàcc fay nga 60 euros ci lu mat 300 personnes avion bu trois 300 personnes ña ca am test matuñu 20 ña ca des ñëpp ku ne 60 euro nga fay sauf man ak waa ji ma ak ki ma àndaloon ak keneen ki nga xam ne amoon na fit toog ni man. te def nañ fa deux heures de temps om li ñuy vérifier doog a jeex ñu xam ba dem ba xam ne ñëpp jeex nañu ñu doog noo bàyyi. biñ demee ba ca final ba xam ni duma ma fay def naa sax benn erreur ndax dañoo ñëw ne ma góor gi xaaral ñu visé la sa passeport pour boo noppee mm, booye booba damaa waroon ni leen déedéet parce que man bu ma naree fay ñu delloo ma Espagne ndax am naa billet retour mais loolu malheureusement laaj li sama xel di ne visé naa sama passeport ba pare mais kon dama leen naan delloo leen leen ma Espagne waaw képp ku amul fit boo dee ñëw préparer loolu ku amulu fit boo dee ñë bay boo nga dem uti mm, autorisation nga dem def def sa test ñu jox la sa kayit sinon boo ñëwee dinañ lekk su santoor ci zéro